góor ñi nekk Europe te duñu sangu bu sedd bi ñëwee duñu sangu ñi ngi bëgg a rey seen jabar ñi ngi leen di bëgg a rey man Europe laa nekk mais sama jëkkër mi may bëgg a rey ndax du sangu bu sedd bi ñëwee du sangu buy wàccee xool noonu lay tëdd ci lal bi xëyee dangay gis sikkim bi ak bopp bi majj ni mu sangoo woon xoolal mbàjj mi da ciy takk ci ci ci sikkim bi ak ci bopp bi xoolal da ngay def da ngay seet loolu ñoom jàpp nañ ni daal sëy moom jigéen ji rek la jigéen ji mooy dem di def lii bëgg lu bëggal jëkkëram mais góor gi daal du def dara non du loolu parce que góor ak jigéen ñoo bokk di sëy li jigéen ji li góor gi yëg ci lu neex xet gu neex li góor gi li góor gi sentir ci xet gu neex loolu la jigéen ji sentir ci xet gu neex loolu la góor gi sentir ci xet gu ah, jigéen ji sentir ci xet gu neex waaye ñoom pour ñoom jigéen ji rek dangay jënd jënd bay bëgg a dee seppee bu dox nga yóbbante ko parfum yóbbante ko cuuraay yóbbante koy sër yóbbante koy dara bi fanaanukaay yu weex yi mais dara doo am envie sax laal dara bi c'est parce que dafa metti dafa metti danoo war a xool ci lu ñuy def lu leen di bégal ñoom ñu xool ci lu ñuy def loo xam ne si nii ñun dinañu bégal mais mënoo mënoo fexe fexe fexe man moom sama jëkkër a ci sama jëkkër du sangu day xëy buy xëy du sangu bu wàccee du sangu moom daal noonu daal lay tegal bu demee nag ba am ay fan yu baree baree baree bare daal di commencé nag sangu benn yoon bu sangoo benn yoon jeex na dootul sanguwaat bala moo sanguwaat day am ay fan yu bare du muy doot di sanguwaat xam ni loolu dafa metti dafa metti dimbali leen nit ñi nekk fii ku nekk foofu sa jëkkër ni la dama lay yóbbu bu doon yowal damay lànk fii nii metti na sedd bi metti na dangay toog doo wax ak kenn doo gis kenn doo wax a kenn wéetaay bi di la bëgg a rey yàlla boo fi yore doom nag boo fi yore doom sa benn loxo bii kese ak say doom nga nekk say doom ak sa benn loxo bii kese doo am ku la ci dimbali ndax nga bu nu xëyee liggéey bu nu wàccee sonn loo leen nga jox leen ñu lekk tëdd nag di nelaw xanaa ñu am ci yow soxla buñ amee ci yow soxla moom bun gaaw a nelaw waaye buñ amul ci yow soxla tëdd na nelaw war na ginnaaw te sang gi moo déranger te yow ndoy ni mu mel ni mu ah poqutaan ak gémmiñ dafa war di set ay waaye dimbali leen nit ngir yàlla ñun ñoo ngi bëgg a dee te man samay morom a fi nekk nag waxtaan ak samay morom sama morom yépp noonu la def mën leen xaar leen ko wax baam dimbali ma Ndoye Bane nga tegal ma nii ngir jëmmi sëñ Bass Abdou Khadir mi nga yaakaar dimbali ma nga tegal ma nii. yow xanaa doo koy tàngalal ndox tàngalal di ko tàngalal ndox su bañee sangu nga fekk ko fa mu toog xëpp ko ndox mi bomb ko nga sango ko yow sango ko tàngale ko ndox sango ko bomb ko ba mu set wicc. moo yow Ndoye Bane xoolal affaire bi ñuy tàngalee ndox mi ngi xam nga fii nii Italie affaire bi ngay tàngalee ndox ndox mi chaque jour mi ngi tàng ñetti jour mi ngi tàng moo nangoo ta sangu damay wax ba bëgg a dee damay wax ba sonn du nangoo sangu damay wax ba bëgg a dee dama koy mere mais duma faale sax su ma ko nee doo sangu mu ma déedéet déedéet la wax pare ci lu munta tax muy sangu bu lu munta lu bu ci bu ci sangu du day dem jël sangu farata daal di sama jëkkër bëgg naa ko de bëgg naa ko bëgg na ma bëggante nañ bëggante nañ trop manam li di xëppoo sax xëppoo ndox moo gën a bari li muy sangoo saabu xëppoo même farata sax su ko dee sangu bu boo ko duyalee sio bi boo boo demaatee ca sio bi di ko xool da nga naan lii gone ci doon sangu da nga naan gone ci doon sangu li muy sangoo daanaka du mag ak satala ci mbëggum jëm loolu baaxul loolu baaxul yàlla sunu borom boo ko dee jox li moom danga dangay laab sangu ba sat xeeñ lu neex nga xam ne dangay xalaat ne tey ji boo doon dem ci say moroom dangay sangu ba sat xeeñ lu neex te ñooñu dala yàlla mënal say moroom yooyu mënalul na ko kon yàlla sunu borom boo ko day jox li mu moom dangay sangu ba sat xeeñ lu neex taxaw jàkkaarloo moom tala sa loxo ñaan ko mu may la waaye yow doo bomb foo toll xëppoo di nga def di nga di nga di nga def rek ñun jigéen ñi nekk fii te ñu bari dañ koy jàmbat nag te en général dañuy wax naan jigéen ñi bu leen seen jëkkër yi dee sàkku bu ñuy bañ bu ñu amee doom du du du loolu dëgg la bu ñu amee doom du baax jooju dëgg la waaye nag nit bu la dee sàkku ngay lànk nañu xool la tax ngay lànk la tax ngay lànk nan ko xool mais yow sa jëkkër xeeñ xul ñàkk tooy xëpp nga xam ne sanguwul dëkk tiim la sëy yéen ñaar ñëpp dangeen a war a am bànneex waaye yow ñàkk xasaw xul ñëw tiim la wala dangay sa xel mi di teey te doo a bañ a bañ doo mën a bañ xam nga dafa metti danoo war a wax loolu ba pare loolu lan war a xool la war a lan war ga lan war a xool mën naa laa fotoon sama sama sama néeg envoyé la ko nga xam ni tërëf bu leer laa lay jox damay jënd lu nekk lay jënd waaye duma mën a fexe fexe fexe fexe ah waaye baan wax leen ci loolu wax leen ci loolu góor ñi nekk Europe di bëgg a rey seen yi bu sedd bee ñu leen di bëgg a rey te sangu wax leen ci loolu